jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàcc waaye di leen wax ne nag ñoo ngi fii bii wasaare ci émission bu mag bi nga xamante ni nii mooy jàmmaarloo mbokk yi tey nag jàmmaarloo bi dafa xaw a spécial tuuti ndax dama dalal ñaari xale yoo xamante ni nii làmb da leen a bàyyi xel ñaari xale yoo xamante ni nii kii bu jógee Medina jóg Fass Medina jóg jàpp Grand Mid Grand Dakar côté boobu yëpp dañuy jóg ñëw kii bu jógee Parcelles jóg golfu Géejawaay xale yëpp jug topp ci ginnaawam ba tax na nag tey dama leen fi dalal ndax kii di Ardo bu ngeen xoolee dalaloon naa ko fan yee passé ki nga xamante ni mooy Mbagnick Kaye bëggoon naa ko fee dalal ba am ñu ma ko woon bëgg a booleel mais fan yi ñu doon waxtaan ma dégg ne ñoo ngi dox combat ak Ardo ba tax na moo tax ma boole leen fi ñoom ñaar daje leen fi ñu bëgg waxtaan daanaka sax su ma juumul mën naa ne combat bi taxaw na ndax la ñu waroon wax yépp wax nañ ko xëy na peut-être des na tuuti réglage rek moo tax ma dalal leen fi bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb bëgg waxtaan ak ñoom ñaar ci seen ak li jëm ci seen carrière ma bàyyi leen ñu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi euh, Mbagnick nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay. daa ma sant yàlla. julli seen micro bi sant sama ñaari waajur. Mhm. di sant waa Medina Gueule Tapée Fass Colobane waa Cité Marine Derklé xaar yàlla grand. yëkkatil micro sant waa Kër Ndiaye loo mu jógee waa Tëngéej ak ñëpp waaw. doo nuyu sa waay. ah ma àndal. Hmm. Ardo nuyu naa la. waaw ñu ngi lay fay di wax onze billah bismillah inawaan yàlla sant borom bi julli si yeneen bu tedd bi sant borom Touba bam ñu booleeg Baye ba lépp lépp lu bon dañu koy bàyyi yàlla nañ ci sax ba keroog ñu ñuy yóbbu Touba tuubi ruubi naa jàpp nañ la faal dootuñu la baax yaa ñu digal ñu topp Bamba ba seytaane bu ñu koy yàqal ñu bala fa yaay suñu ndey di suñu baay bu ñu la tooñee rek ne la baal ñu faal yàlla tere xel xalaatul di la tooñ ni kon mu weere sant ak sikkar moom nga ñu digal wante fecc bi dañ koy tere jëfe ndigal bàyyi tere bu ñu ko defee yaa tax ëllëg ñu texe jërëjëf sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul di di di nuyu sama adversaire di ko jéggalu si tardement bi lu mënut ñàkk faaw mu am dañoo amagul ay waruwaay ñu ngi koy ñaanal ñëpp rek dal nañ si jot incha allah ok jërë ngeen euh, gis ngeen jërë ngeen jëf yàlla na yàlla may ay waruwaay may leen xaalis bu bari bari ndax dégg naa ñu ne mbër mu ndaw dafa metti ba tax na nag des fois tardement bi mën nañu ko comprendre euh, mais lii nga yor laa bëgg a xam lu mu doon balaa balaa dara di xew. est-ce que doo eh, laaj ko ko. déet man yow laay laaj ndax yow mi ma gis nga téye ko. <laughs> damay ñëw xam nga ñoom ñoom ñoom ñoo nekk ci. micro bi. waaw ñoom ñoom ñooy ñoo ñuy ñoo ñuy féetee fu nekk quoi lu ñu wax rek loolu la ñuy def waaw amaana ñun du ñu xam sax fu làmb toll xam nga mais dara duñu ñu ëmb ci làmb. Mm-hmm. waaw du ñu xam fu suñ combat toll mais dara duñ ci ëmb parce que ñu ngi concentré suñ suñ ci suñu bopp quoi mais lépp lu ci war. lépp luñ luñ ñu digal rek dañuy jàpp ni foofu lañ tollu ci làmb waaw moo waral ñu ngi leetoo daal waaw yàlla ñu yàlla defal ndam yàlla ma yàlla may ndam ci kaw Mbagnick Kaïré waaw. <laughs> yàlla na yàlla may ndam ci kaw Mbagnick Kaïré li ci kanam raw li bët mais Mbagnick kañ nga dugg ci ci làmb. làmb tey micro bi. jour combat Koña ak Balla Diouf quoi mais damay fàttali nag. damay fàttali waaw mais Koña ak Balla Diouf si laa bëri sama premier combat ak Mbaye Tine boobaak léegi ñaata combat nga jot a def. neuf combats. ñaata victoire. six victoire benn sans verdict ak deux défaites ah. deux défaites waaw. kan ak kan la daan Bulldozer ak. Bulldozer ak Zeko par avertissement. Zeko Balde. waaw ba ngeen combat bu métti kaw. waaw combat bu neex. boobu mooy sa bu mujj. waaw. Hmm. mais keroog dañoo gis euh, nga ñëw euh, sa mën da nga koo bàyyi ñëpp xam nañ ne kii di Jacob mbañu kayre boog du moins day xeex day bëri mais ñu ñëw gis la xeexuloo bërewuloo da ngaa ñëw taxaw rek di aneer di génn di dellu si di aneer lan la woon jour boobu. conseil xam nga moom làmb dañu am. micro bi aj ko moom làmb dañu am staff quoi lu staff bi dugal rek lu staff bi rek mooy loolu quoi mais après bañ demee ba si biir xam ne lu làmb affaire yi mais lan moo tax lan moo tax li nga li nga li la staff digalee nga ñëw mu xeex ak yow génnee la nga ñëw mu xeex ak yow génnee la ñëpp xam ne sa mëneen bàyyi nga ko lu tax indiwuloo andiwuloo jukkoy mbër maanaam kii ma ko fekk si biir Pikine moom mooy duma stade baa nga yu la moo tax andi woo sax na nga daan na nga daan bëree. non mais bëri moom ñaa koy def Jacob dafa ñëw taxaw ma taxaw rek mu nekkoon dama ñëw taxaw mais mu ngi doon bëri ndax moom lay daax at bi mën nañu avertir ñu làmb ji jeex quoi man maa def ay risque ba jël si ay coups rek waaw làmb woon quoi. mais après nga jógee ci euh, ngeen bëri amaatuguloo combat amaatugul combat ma dégg gars yi di doxaat seen combat kenn bëree ci benn yoon. man moom ni ma doon wax adversaire yu bëri mais ñu si bëri ñoo nangul quoi man làmb moom du ma am problème adversaire mais po yu bëri ñooy reculer ñu wax nañ ma combat yu bëri mais gars ñooy reculer quoi. Hmm. Hmm. mais kii daa mel ni reculer wul de. Ah waaw kii mooy loolu quoi. <laughs> mais lan moo dox seen diggante ñaar parce que man maa ngi doon dégg combat moom ñeneen yow maa ngi doon dégg sa combat ak ñeneen euh, bi dox bi yàggul. Hmm. non mais làmb ko amul la gën a am lu fi sa sec ba amul la gën a da nga am lu fi sa sec. ah gënalu la. non gënalu ma de bëggoon naa ñeneen moom wax dëgg yàlla. lu tax nga ko. ah lu tax nga jël ko. ku amul la gënal am lu fi sës. moo fi sës ko <laughs> <laughs> Ardo ah, ñu gis la yow tamit. waaw waaw waaw ñu gis la yow tamit jóge nga ci combat yàlla dogal na nga am ci ndam. mais am na ñeneen ñoo doon wax mais moom dégg naa mu ne ku amul lu la gën a am lu sës da nga fee sës fi mu toll nii. mi ngi si miiru wis bi na si miiru wis bi. mbaa doo ko ci bomb. non sës na si miiru wis bi. Hmm. moom mooy loolu Ardo amul tànk ginnaaw waaw macha allah. mais sànq dama ko dégg mu ne ma Ardo dafa yàgg bëgg kombaa bi. non <laughs> moom moo yàgg bëgg combat. moom moo yàgg naa ko sama koñ. du benn yoon du ñaar yoon. kan moom mii nii. waaw loolu baa wóor na. Ah? waaw moo xam lu mu fa doon def. waaw parce que tamit. ni ko fii nii kenn mënul def lu fi umpe. waaw ñun daal ñu ngi sant yàlla ñu ngi préparé ak suñu mbokk. di si woo ñëpp ñu si daan jàpp man wootee ma fi. indi mais pas moom bu dee moom am naa lu ma koy wax lenn rek Euh, bu mu nuyulee suñu papa ba pare. Mm-hmm. papaam ndax suñu papa la ñëpp wax nga dëgg ñoo ko nuyu kay Boy ñu ko gannaaw ba mu ñu ko nuyulee ba pare ñu jox ko wàccu waayam ñu bu wér a xam nga ah daa am lu mu ma ameel te daf ma koy jox. kan moo am lu mm. <laughs> ko jox peere vert bi peere bi ñuy sol. Uh-huh. loolu sama couleur la maa ko moom. moom laa jël si moom laa jël si paax pas xibi. <laughs> kan wax jéggi na xibi. waaw après ah. dinañ si indi ay leeral li may wax jéggi na xippi. Ah. waa père xam na loolu. waaw ki ko ko jox dénkaan la woon borom a ngi soog a ñëw. waaw noonu la demee. ba baa diisu si loolu est-ce que diisu <laughs> boo demee nga wax ko xam na li ma koy wax. Ah, waaw mosuñu gisante suñu tegoo loxo mais li ma la wax boo koy waxee rek moom dina am lu mu la wax wala waaw wala mu denc ko pour boppam. Hmm. loolu man maa ko moom borom a ngi soog a ñëw. un waaw ah, loolu nga foog rek. mais parcelle bi nga wax dafa am ku ma fa doon seet élage bu jéem laa fa doon seet élage mu fa dëkk élage laa fa doon lii. waaw ma leer loolu kese moo ah, lu ma fa yóbbu loolu. xaw ma man damay laajte doom loolu ma fa yóbbu loolu a sax ban combat dañ jógoon stade après jaar noonu rek. jour boobu daje naag moom sax muy dox nii. daje man mais gisuma la. Hmm, voilà mais gis naa la. gisuma la ndax man man moom pour ma gis si lay jox sa wàccuwaay siyaar la. pour te gis naa la ñu ramante nii ma gis gis naa la. mais après nit moo ma wax ni xam nga mooy loolu soxlawul mais jaar nga fa leeral nga loolu soo jubul yeneen ak yeneen a ngi ñëw nag ñu ngi leetoo waaw ñu ngi leetoo sëñ Fall na ki di ñëw sa koñ di ñibbi naan ay élage bu jéen ak est-ce que fan est-ce que fanaanuma gàlle moom ah, garaawal peut-être ah. Baye Fall suñu gàll moom ñu ko fay fanaan loolu amul problème mais sa combat sa combat ak ak ak ak ak Ardo parce que ñëpp gis nañ ne Ardo sa combat am xeex bi da ciy bari bëri bi dina ci bari te yow moom ku la xam buñ nee xeex mooy pël pël beeg soow bi la ñuy wax sa combat yow ak Ardo que xeex mën na cee am mën nañ ko cee xaar. non mais lépp la làmb moom lépp la ñuy indaale booy dem yóbbul lépp yóbbul xeex yóbbul bëri lépp yóbbul lépp lépp day am moom incha allah. mais ñu gis sa combat bi ñu bi bu nga ñàkk ko nga jóge fa jël xale bi nga xamante ni nii kuy bëreeg moom di nga di nga ko bàyyi xel ci wàllu bëri ci wàllum xeex naka nga ko nooy waajee doo ñëw téewaat sa bopp comme li jotoon am bee passé. non mais làmb xam nga ñu dañu am staff staff moo la naan bëreel nii rek làmb la rek boo gisul esaat nga indi sa nga indi sa mënin ko Ado est-ce que ñëw nga xeex ak Mbagnick. Mbagnick xeex moo ma gënal kaay añ. non mais dama ne est-ce que ñëw nga xeex ak Mbagnick kaay la. moo ma gënal kaay añ loolu dañ ko tarbiw xam nga ku jaar daara ah jaar feneen ak feneen ak feneen ay xeex ak diw ak diw nii non aw ma si choix lu mu gën a pungal gën a baax lu mu gën a diis gën a baax. ma ñëw ci Baye Djily Baye Djily gis nga combat bi xëy na peut-être jàmmaarloo daan na la fi fekk waaye mosuloo ñëw assister ko naka nga gisee ñaari xale yi ci question boo amee boo may wax déedéet dama danaa ci dugal waxal rek dinañ la dégg. ñaari mbër yi bi ñu dugg see. Mhm. mbañ laa fi fekk. Mhm. moom daa judd ci kër gi fekk fa ngewle. mu jël ko bëgg fi baayam tegoon tànkam ci làmp mu teg fa tànkam. Mm-hmm. bi muy dugg si ci làmb ñu bari moo jéen dañu dañu dugg seen doo mm-hmm. mais ñu bari dañ doon wax naan moom moo dàq bëre jéen. mais moom boo ko laajee. danaa la jéen a ma dàq bëre. Mm-hmm. mais ñiy analyser làmb wala di seetaan xam nañ ne xale bi am na ndoxtu bëre boo xamante ne mu ngi ci moom. kii dama ko topp muy bëre mbapat parcelle. maanaam du ma ne sax euh, kii nañ waaye laale nañ man ak moom. xam naa bëri gi nga xamante ni mu ngi ci moom. fàtte naa mbëbu bàyyi waaw parce que boo nekkee xale dëkk ci gox. Uh-huh. gis ay xale yoo xamante ni man yàgg naa wax ni Ardo tànk bi mu teg ci làmb. Uh-huh. bu ko teggiwul mun naa doon sampion ci làmb. li njëkk mooy dafa waane. Uh-huh. ñaareel bi mooy dafa bëgg li muy def ñetteel mooy dafa sérieux ci entraînement. boo ko xoolee saa yu bëre si bu ñëwee simmeeku meeku gis ne xale bi kat vraiment màgg na. combat bi xaw ma kan moo ko taxawal. Ama Dia moo ciy dox de. ah, ah xaw ma moo dox xaw ma doxul Ama Dia bu fekkee booy jot nañ avance. na leen yónnee avance léegi sinon. laa promoteur bu mag dina ko jël da koy jël làmb ju neex la ñoom ñaar bu ñu xeexee mu neex bu ñu bëree mu neex Ouzin. kontaan naa ci yow jii Djily gis nañ analyse yi mu def euh, comme ni mu ko waxee rek xam nga ay xale lañ waaye teewul euh, fu làmb nekk dañ koy faral di topp maa ngi kontaan ci moom bu baax a baax ndax. jàmbaar la maa ngi koy wax mu nuyul ma sama tante ndax xam naa ne sama tante fan yi moom yëngal na réew mi waaye nag àdduna noonu la dangay ngay cuuc fii càpp fii ka maa ngi dégg sax démb seen maire bi nu mu tudd dimbali ma maire bee doo ñëw ñëwal waaw nee na moo yóbbu sa bës bi waaye ne ko maa ngi waajaat ak doole bu baax a baax gis ngeen noonu la demee mais Ardo maa ngi dégg léegi bàyyi ji li est-ce que dégg bu baax li mu wax. waaw waaw waaw Baye li mu wax du lu mu inventé te tamit lu mu jur si làmb du loo xam ne euh, daf see ñëw rek lu mu du dafa dugg si lu mu xamul. Mm-hmm. waaw du loolu quoi daf ko tar bi ñun sax doon nañ ko séntu fu làmb fu sori mais nit ku nekk ak fu la suñu borom di orienté ku ku nekk ku xamoon fan la rek. doo jaar feneen ak feneen da nga jubal jubali direct loolu amaana moo tax tey mu muy bay waaram tamit muy nice yéen ñëpp wax dëgg fa yàlla wasaare ñëpp ko xam léegi. c' est grâce à maanaam seen liggéey bu nice quoi waaw loolu la macha allah. dëgg la Mbagnick naka nga dégg li bàyyi ji li analyser ci yow. lu analyser dafa leer lu mu analyser ma dafa leer saa yu ndaanaan la dañ koy suivre bu baax. mais mais mais mais sa digganteek sa digganteeg sa digganteeg Ardo parce que dafa nekk combat boo xamante ni su ma juumul grand combat lañ ko bëgg a def te su ma juumul yéen ñaar ñëpp bii mooy seen grand komba bu combat bi bu combat bi doxalee bu combat bi taxawee maanaam bu ngeen jotee avance naka ngeen ko nar a waajalee. dañuy waaj rek comme d'habitude. non comme ngeen am seen premier grand combat nga jóge ci defet moom mu jóge ci victoire naka nga ko nar a waajee. Ah, man moom làmb yëpp laay waaj moom ku ma xam du ma ko fay benn làmb muy petit combat grand combat lépp man chaque jour am si nekk waa ma dégg mu ne euh, ñeme ne xeex ak yow ndax moom kaay xeex moo ko gënal kaay lekk. mais làmb la làmb lépp am na bëri dóor lañu wa non bàyyi boo ñëwee bésub làmb yooyu ñu raw loolu ngay defee mais. non kii ko mu neex fii jàmmaar loola. moo mais bëre dóor la bëre bëre dóor la kañ. bëre dóor du bëre simple. làmb lépp la am bu mu indi rek ñu fekk ko si yaa ma ngeen xam. Hmm. lan moo ci sa avantage ci combat la rek déggoo ma ne làmb lépp. waaw loo fekk xam nga biir géew am réalité loo fa fekk rek la loolu ngay appliqué. Hmm. waaw noonu la demee. alors lan mooy sa avantage ci combat bi. sama avantage mooy ñu si daan jàpp rek jàpp si waaw. di si woo ñëpp nag waaw ku si mel ni Jibi Kayta ak soxnaam Alima xam nga di si woo sama tata mami Mbour di si woo Cheikh Omar mbay monsieur le maire waaw démb rek ñoo toogoon ñoo nekkandoo woon entraînement dina waaw Pape Niang di ko si woo bu baax bu ñu defee li ñu daan def ma tegaat fi ma tegaat sama loxo indi lu raw barki maam Cheikh Ibrahima Fall loolu ragaluñ loolu waaw ku si Pape Pape Niang di si woo Cheikh Omar mbay bu baax a baax ak président ECHO maam Ibra Mbaye waaw dafa seetaani woon match Real match kii bi euh, Paris bi. waaw ñu ngi koy woo mu ñëw daal doole ju bëri. dafa teel a woote hmm? dafa teel a waaw. ñun ay xale lañ amuñu lu ñuy jàppale. <laughs> xale day def yëfu xale man dama di xale bu ndaw. làmb ku ko fonk benn fonk naa ko fukk wuyul neen da waxoo ko ñu ngi waxtaan ngeen woote ni nañ nañ li wax si làmb ji moo gën ngeen tal man jaaroon naa fi ah. fii du ma fi gan li ma fi wax da nga teel mais d'accord ma jaaroon nga fi mais moom fi mu toll yow ak lu ma koy li ma ko waroon wax dafa teel a woote quoi woon wax naa ko na ma ko jotali sama papa loolu kese nga amoon ci loo koy wax. billaay loolu rek laa amoon mais yéen ñaar da ngeen téyel micro bu baax yéen ñaar da ngeen war a jëflante il faut ngeen neexal ko. jëflante jëflante. Hmm. fii nii wax ji bëri rek. mais loolu nag laa bëgg man man wax ji bëri des fois. non wax maa ngi dégg yéen bëri nee nañ ma seytaane nga ndax da ngay jaaxle sa ñaay. wax ji day bëri <laughs> ah te arbitre day siffler mu mu naan. paa bi lan la waxoon ak paa bi lan la waxoon ak kii lan la waxoon xam nga. mais loolu Modou Anta ah. waxoon na ko fi est-ce que moo daan doo ko na ko jéene naan ko bi léegi lii nii. Modou ànd sa solo ngaa bopp rek. boo ko waxee sëne la jik ak ah. Ijo Boy Beng la. leer la de. salaam siyaar bëggee. bëree rap reggae fi ma jógee dafa sare hérésie mënuñu ma téye ndax dama soxor kele attaqué koñe gañe moytuma damay reye waxatuma waxu gañe maa la mën defar leer a bu dul jàggi ndaama dina tar ba nga fàttaliku julli foog ne dañ koy daggaat ni nga yow mi doogaat doo dem kon toogal bu dee sa biir dafay daaw si min sa tubay jonkanal bu tëwee génn onkal nag amoo xel ponkal nag jo booy beng la rang ngay teg ni may toog ñoo gën doon bàyyi la sax xel yaa nga ma bàyyi xel nag yow yaa nga ma bàyyi xel. barki sëñ Fallou Ba ma. combat bu nekk jox nañ ko ko mu ne jëlul. moom mii yi français lañ ma foog. kan affiché indo la joué kaboy. combat la arbitre sifflé du ma xaar sax arbitre sifflé. Hmm. waaw. da bandi. man du ma bandi Baye laa. non mais bandi wéyooyu mais Baye Fall mooy mooy seen maam. bandi wéyooyu bàyyam mais Baye Fall mooy seen maam. man ku ku nekk dama la jox sa cër bi nga. bi nga am mais xam ngeen dañoo am mafia bu dëgër bu wow koŋ. la mooy mafia. ah non xam nga. waaye yow ma indi dëkk wax ni miis naa ay arab man miis naa yu a jaay ma indi dëkk ay réew la may yàgg yàgg dëggay féetee kaw. luubal amul solo li ngay rek ay fay. waaw français lañ ma toog moom moom lañ ma foog moom laay affiché mais mooy loolu ba bés ba. lamb ji taxaw na de. dafa bëgg def ko France ngeen ko jàppee lu yomb lu yomb amu fi. non ban koy wax ji leer na. ban man samay combat yi dox yeneen mbëri ñoo lii avance sax barki yàlla. mais bii yaa ko dox ah? bii yow yaa ko dox. lan moo ko dox. bii yow yaa ko dox barki yonente bi barki alxuraan at yàlla mu la daan as moom a stop jëlal ardo jëlal ardo barki yonente bi ñeneen laa bëggoon sax ku amalu la gën a am na fi sa su loolaa la wax. yaa ngi si miiru wis bi nag. voilà loolaa yaa ngi si miiru wis bi xam ay mauvaise information la la informé de. mauvaise information man as li may déggante moom sax bëriwul man mag sa ko presque taxawoon naa si moom la yaa xool moom la du bëri Iba Mar ak Lini waaw man nag ondul waaw waaw moom laa bëggoon bëri après moom mu lii nii non man du ma topp mbër ki lay informé waaw la keneen mu bëggoon taxaw mu ne moom grand combat la bëgg. journée kii bi la moo wax loolu. moo tax mu bëree grand combat. maa sant bu baax a baax a baax. journée kii bi la nu du sax journée kii boo nekk Ikri Balla Gaye. fils de Balla. non non Kaaw Gouré at kii ca Daaro Fall. dañ ko dox man nangu naa pour mais sama staff ñu ma ne yow ñii doon la mbëre spécial. bilaay walaay bu nekkee man ak man garaaw. mooy li ma lay wax rek bés ba staff bee ñëw naan ko defal nii defal nii. Hmm. waaw kon amul lu may wax ak moom quoi. nekk mu wax loolu maîtriser day wax loolu waxoon na ko fi bii de. non gis nañ fi li nga fi bëree ñoo gis lu mu bëree. Hmm. xam nga ak Ardo bokku boo yeeg Ardo bokkuñu sax. mais est-ce que loolu man kenn du ma yee ne ma demal entraînement. Hmm. mais góor xam nga lépp loo gis lépp loo gis maanaam Ardo di ko doxee jàppal ne maanaam. si xel mu sell quoi ak Baye fale yi diisoo ndax xam nga maslaxa ah si diine la bokk. Mm-hmm. te ñun ay jullit lañ quoi moom la ñuy doxee dañuy maslaxa ak ñëpp. mais ñun ni ñuy doxee jàppal ni maanaam suñu suñu suñu yëfi bopp la. copié wuñ si kenn. mais lan moo ah. waral kenn du ma yee na mu jugal dem entraînement lu waral loolu. non non c' est parce que maanaam. boo juddoo si judduuma si fam famille wu mbër. ma loola ma jaaxal comprendre. ma loola ma jaaxal non judduuma si famille wu mbër. Mhm. xam nga aw ma encadrement boo xam ne tey jii nii ah. am nañ pouvoir sax am nañ pouvoir sax dugg suñu kër dugg fa sax yombul ñun ay pël lañ. Mhm. xam xamuñu yooyu man maa sob est ce que yaa ngi comprendre. Mhm. man maa sob dugg ci làmb xam luy xam lu si nekk déggoo ma de tarbiyu ko. ba yegg si fii kon man gàccee nga alaama macha allah na yàlla xeeb xeebu ñu benn yoon. yow dañ lay yéene la jugal dem yee kenn ku ma yee. xaatu ma sax. non yee man kay noppalu lañ ma wax. bari bilaay noppalu lañ ma wax la ma fekk nee nañ. noppalu si digg kër gi man ngéem gi koo wëri. loolu ku nekk sa destin rek loolay àdduna. bokkuñu ku nekk sa destin rek loola rek. mais est ne combat bi combat bu na neex lay nekk. non bu neex la day neex. combat bu neexee man maa ngi neexal lépp yaay def. maay def lépp. li Modou Lo waxoon Ama laa koy wax parce que man maa toll foofu maa soxla. kilim bee neex rek at fi mu toog looloo neex. kilim yow yaa yëg kilim maa ngi tàng jër yaa tàng foo tàng ñàkko yaa yëg kilim bee neex rek xam nga fii dafa neex. ak caméra yàlla yow yaa yëg kilim yow. boo duggee stade Mar mu ànd ak gaayam yi ñëw. boo duggee biir Sinta yoon day métti de. Fall yow yaa yëg kilim yow dafa dafa de. yombul de Iba xam naa ko yàgg naa faa yëngal combat bi lu fay neex maa koy def barki maam Cheikh Ibrahima. kan moo dàq bëri. na jël lépp na dàq bëri na ma na ëpp doole na ëpp mystique na ëpp lépp. mais bés bi sama bés la. barki alaaji Cheikh Aziz Mamadou Moustapha faal borom xayra naaru Kawsara Fall. mais Ardo ni ma la dégg ngay waxee nii par rapport bi ñu fi ñëwee ni nga waxee woon xanaa dafa am lu la dee. non daf maa laal. kilim bi moo neex doo bi waaw. xam na li ma wax bu baax. non mais si nan wax da ngay expliquer gars yi xam ko quoi mais doo wax pour wax noonu rek dangay ngay gaa yi xam nu mu demee nii. baatin kenn du ko wax baatin du lu ñuy gis. Hmm. du lu ñuy làmb daj lu ñuy dund la. waaw xam naa dañ ko dee quoi. <laughs> dañ koo dee de li mu waxee nii di aalu nii. <laughs> waaw mu nga mbër bi dañ ko laaj yow ndax xam seqoo kii jaam mu ne ko seqoo leen jàmm waaw. <laughs> ay kurpañ amagul mais lu nekk xew na bu baax a baax kenn ma ne ko amagul kurpañ mais lu nekk xew na kii mu ngi bëree mu ngi leetoo mm-hmm. waaw mais sëñ Fallou yàlla baax na yàlla kenn la mu ngi leetoo mu ngi leetoo déggoo li ma la wax mu ngi lan <laughs> dóor ci des dóor rek a ci des mu ngi leetoo mu ngi leetoo man sa man ngeen gis mais moom mi ngi leetoo ay gandim leetoo moo bëgg combat bi dégg moom la wax ba combat bi ni muy taxawee sëñ bi moom moo tax combat bi taxaw. non maa tax nga bëree grand combat loolu nga wax. dégg nga ma la si sant bu man du ma leen bëreel spécial. loolu loolu ma la si sant bu baax. am nga a te man nangu naa sax mais sama staff nga wax sama staff bu ñu yeb ba ngay ba léegi nii. loolu loolu loolu tax quoi mais du. mooy li ma lay wax. man dama jóg pour neexal ko est-ce que staffam pare nañ pour neexal ko foofu laay waxee ak yow. ba staff maa koy feesal de. waaw non mais neex la wax nee na est-ce que di nga ko neexal. kii euh, staff bi lay xaar pour yëngal staff bi lay xaar pour def dara. non mais da am kilifa dama pare man pour neexal ko engagement personnel. naa Samb da nga kilifa. ñu dañuy dem pour doxee ne gars yi dab ne nii ngay doxee loolu àdduna moom bu nekkee moom mooy doxe affaire moom ma rek waaw. fii ñëpp a am kilifa. bàyyi ma ak sama kilifa ak sama staff. loo ma doon wax loolu tamit. mais li nga war a gérer rek am kilifa mais. la lay wax ji man dañ may bu ñu ma yeewee si gétt gi dañ dañ may bàyyi ma dem àll bi fu ma aw ma fi sens interdit fu ma neex laay dugg moom nag dañ naan ko yamal fii. kon ootul daje konfóori de ñax bi ngay lekk daje konfóori de. mu ne boo ko defee di nga daje konfóori de. yow xam nga xamee nga konfóori yow. boo ko defee di nga daje kanfoori yow may kanfoori nga nga bëgg ma daje moom si àll bi waaye yow. incha allah mais bu fàtte yóbbante bi mu la yóbbante boo demee nga jottali ko. paa bi ah, yóbbante bi c'est da ko war a firi quoi loolu mag na la loolu mag na la loolu ma na la yow. Ah, est doo ko leeral tamit bu demee mu mun a mun a. moom na ko papa am ah, nuyu benn nijaay mu nekk Tëngéej benn photographe benn nijaay mu nekk bu baax a baax. nijaay mu nekk Tëngéej. nekk Tëngéej waaw. loo koy nuyu. dama koy nuyu bu baax a baax sama gaan la dañuy toog di waxtaan ak loolu lépp. Hmm. moom moo loon nijaayam la. nijaayam la waaw. daa am sa nijaay bu nekk Tëngéej. Tëngéej sama lépp fa nekk waaw sama lépp. <laughs> mais mais man dama xaw a tiit tuuti ndax ñu ma gisee kii hmm. ñëw na parcelle. Hmm. moo ngi fay ñëw. déggoo li ma wax moom moom moo taxawal combat bi. léegi waaye promoteur beeg kii jox xaalis man na am xaalis ma taxawalee combat. kii promoteur beeg taxaw combat bi. mais man li ma ci jaaxal sànq dafa ne yow yaa dox combat bi ba combat bi taxaw yow nga ñëw ne moom moo dox combat bi ba combat bi taxaw. as as moom yor ñun ñaar ñoo bokk ménager c'est que loolu la as moom day xool liy neexal làmb mu koy def. voilà loolu ngay wax rek mais bu la naan comprendre mhm. mais moom moo dox combat bi ba combat bi taxaw. non déet saa yi loolu nga foog rek nu koy doxee. Mhm. man ñi ma war a bëre ñoo ñoo lii rek dafa yàq ab ma dama ñëw si yow. da nga ah, soxna moom benn yoon burul ñaara na ma jëlal combat bu ñu fontoo. jëlal at ma bëri moom hmm? ñan nga bëggoon bëre. man man aw man aw ma comme moom ni mu wax non billaay boolee ma ko sama calendrier. parce que promoteur yu bëri woo nañ ma ni ma wax ardo quoi. boolee ma ko sama calendrier ay dix promoteurs sax. kii moom nee na ma bëgg a bëreeg man dama ne fii. ate ah, ah, ah, demal demal demal non man dafa am ko dugg si léegi waaw demal. billaay wallaay ay promoteurs yu bëri doon nañ ma di ma wax ardo ardo ba paa bi na kan mooy ardo sax ma ne ko ñu mag aas ñoo bokk benn affaire quoi. bu waxatee kan mooy Ardo da nga naan kii la borom verre blanc borom verre bi. waaw amul problème waaw. ma jaaxal quoi boo loo xam ne amul. non parce que day def buzz te xam nga ah. moom mujjee daan caatu fora. non mais champion la kenn weddul champion <laughs> champion la wax loolu quoi ñun ku ñu war bëri lamb rek dañuy bëri moom amuñu problème adversaire parce que ñu ma woo si promoteur war na ma dis ku ma wax Ardo lay wax. waaw di oh, woo Omar bu Garga Mbossé. na gars yi jàpp si lamb ji waaw. wooteel de yàlla xéewale leen. mën na wooteel de champion nga bëri de wala wala parcelle yi nga doon bëri ak man bokkul de. di woo di woo ñëpp bàyyi ma kenn waaw di woo waa Louga waa kër maam Cheikh Mbaye di woo waa Tëngéej boobu noonu mu tudd waaw di waa Tëngéej bu baax a baax a baax di woo sama mbokk Haalpulaar yi waa Thiès waaw waa Fuuta na ñëpp ñëw. waaw ñu yëngal gësam jël luñ moom cas ma yëkkati mbaa àttan nga ma ñu dem jox la jëli ko. <laughs> léegi di taasoo ci des <laughs> moom. day répété moom rab rek moom ay rab la ñaari boor la paaka xoolal mille boor man toogal ñoo la gën a mbër man la mbër man la mbër boo xam ne xoolal mën naa ne yaakaaruma si kenn damay bay dundee xam nga damay bay dundee di jaay sama lëjum. est-ce que yaa ngi comprendre du ay waxi mbër. ay waxu mbër yi mis naa ko ñu may toogal ñoo la gën a dee million fois li ngay wax ni mis naa ko ay rey nga may. ñi ngay toogal wër na yàlla lijjanti ñi ngay toogal mis naa ko bilaay. yow ñi ngay toogal la wax doon jaay prek cent fois est-ce que mis naa ko waxal mu ñëw rek jaay prek bi di wax ak yow nga naan ay jaay prek ah yow Baye Fall lay wax ak yow nga am. jaay bi mooy jaay bi ah, fu mu toog moo sama cër waay. Ah, fu mu toog dafa ah, neex kilim baa may dal. barki maam Seera Fall daluma billaahi wallaahi taalaa kilim bi daluma daf maa tëb. gisoo ni muy jaar. waaw loolu mën naa nekk. dama tàng. non mais tàng boo xam ne ñàkkagoo ba léegi. lan war a ñàkk boo taxee da a ñàkk tawat. mais yow sax yaa ngi ñàkk yow dafa mel ne yaa gën a si forme dama damaa tawat tawat. da baax rek. <laughs> léegi nag gannaaw demee noonu bàyyi Omar Mbaye. waaw ñu yokk cere dolli ñeex. bàyyi ji li naa ko naa ma denc ko. képp ku ci daan ma yëg ci BRV bi si woo Waali bu Lat Diop xam nga. Bakary bu Lat Diop. di si woo Alima bu Lat Diop xam nga waa kër Lat Diop yëpp di si woo waaw Cheikh Omar mbay maa ngi woo di la woowaat Omar Ndiaye xaarib Amar May Ndiaye. waaw yokkal añ bi am nañ combat xam nga di woo waa parcelle ñëpp rek ku luhum ku lim jum waaw lu mënul ñàkk nag faaw maam bu dee daa am lu dëng na ñu ngi koy tub bu baax di ko jégalu te xam ne xam nga dafa war a neex te maa ko war a neexal. Mm-hmm. barki maam Bamba xam nga di wax waa Poosi ba yëpp. waaw ah. waaw ah. yi xam nga waaw waa Mbour waa sama sama waa lël Santa waa Sajakunda waa Raay nit ñëpp ñëw ñu indi tàng-tàngoo yi comme niñ ko doon defee. bañ ngay bële moo da nga bëgg àdduna nu mu demee. yaa ngi comprendre. yaa ngi du yow. affaire bi man la. yow sax nga da ngay sa bopp bëgg woo àdduna nii. yaa wax ay mille wax de waxal benn wax affaire bi man la dama war a yëngal dama toll si yëngal xale laa. nga ne war a xuusal sa bopp léegi xuusal sa bopp mais yaa ngi wax àdduna. du yow du yow yaa ma tax a jóg dama jóg pour wane sama bopp. déedéet ba ma taxoon jóg ñu fi woo ñu ñëpp da ngaa comprendre man li ma ci jaaxal mooy mbañi buggul émission bi jeex. Ah, ah, te laa bàyyi nga tàggatoo gaa ak ma temps bi jeex na la fi nekkee. ma dese yow da bëgg a wax say carrière yooyu waxal. carrière man jaaroon naa fi man carrière jaaroon naa fi waaw tàggatoo. <laughs> teel micro bu baax. Hmm. waa Derkel man Baye Fall laa woo man wax dëgg yàlla. amaguma ku ma jàppale ko mais Baye Fall waa Derkel waa Sida Marie waa Aleya ba waa troisième waa kër Serif Baxeda maa bu baax a baax waa kër Serif Baxeda maa leen woo bu baax a baax waa troisième waa Aleya ba waa Fabelas waa Cité Marine Derkele Cité Asegna waa Mbidna Fass Colobane Gueule Tapée du woo Thiam production Baba Diaw kooku moom borom baax la quoi. ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax ñu bu baax a baax ak di nuyu ñëpp ay ñoom Sipion Ndour Afia waa Mbidna daal ñu leen woo di woo Bamba Fall si combat bi ay Cheikh Ba. ay DG Port ñu ngi woo gaa yëpp. doo woo Dieng. waaw di woo Dieng ñu koy koy woo nag di ñaan yàlla yàlla ko yàlla may combat nag wax dëgg yàlla. Mm. ñu ngi woo ñëpp daal. di ñaanal teema si combat ma. waaw ah, noonu la pare jël ko. noonu la demee ñu la koy ñaan noonu la demee góorgóorlu rek. ba Paris maa lay woo si combat bi di woo Jules Jules Mafe Jules Fondé waa diaspora bi tam maa leen woo quoi waa diaspora bu baax a baax ngeen jàpp si combat gis nañ nga defoon si combat bee passé ñu lay naan waaw mooy loolu nga dolli yàlla na yàlla yokk ak sama gars yi nekk foofu yëpp ku luxum ku lim jum waaw ñu ngi si. waaw lu mobilisation na mobiliser nag Pape Gueye bu si woo assurance bu Papa Sow dañ koy daw de ñoom nga si mel ni mobiliser kii sama jigéen sama xarit waaw maa ngi la si woo bu baax a baax a baax a baax xam nga ma xam borom saaku ceeb yi borom soble yi waaw yow jàpp si ni nga si doon jàppee. waaw mun naa lu football jabar ñoom mu di woo gaa yëpp. gis ngeen mbokk yi ni lay demee ci jàmmaarloo ñoo ngi kontaan ci yéen bu baax a baax di leen wax ne lii mooy làmb làmb fa moom xas-xasloo ku ne wax jox sama ndax mu mën a jaay kombaa bi wala boog nit ñi mën leen a bàyyi xel ndax làmb. làmb dafa baaxoo coow ba tax na maa ngi leen gërëm di la gërëm yow Mbagnick bu baax a baax Ardo maa ngi lay gërëm gërëm ak ñi nga àndal di gërëm Adama bàyyi ji li kontaan naa ci bu baax a baax di leen jox dig daje beneen yoon bu ma fàtt nag sama sama maire bu bees bi ki nga xamante ni mooy meew jàmm gën si kaab mbaaw muy Pape Gueye di la ñaanal yaa xam loo bëgg ci jàmm gën si kaab mbaaw yàlla la ko yàlla defal di gërëm tafaatin quoi kër Ndiaye Lo tafaatin kenkaari at dawal katu sareet yëpp tafaatin maa ngi gërëm bu baax a baax gis waaw di gërëm suñu mafia bi yëpp ñoom ñang baalo di ñaanal 2 Giga yàlla may ko ndam ak mbëru parcelle yëpp yàlla na leen yàlla may ndam. te max yàlla ko yàlla may ndam si kaw Brise de Mer 2 quoi. ñëpp rek yàlla na leen open press bi samedi la quoi ñu ñaan yàlla gaa yëpp teewee yàlla may ndam lu sedd guy Alec Ibra sama seex yi waaw di leen wax ni xoolal. bu waala bi jeexee rek ñu jël yëngal gësam. temps bi jeex na di leen jox dig daje kase du doy. jàmmaarloo ci beneen émission jërë ngeen jëf.